internationale. abonné leen youtube jot saa su nekk ay xibaar yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo. mbirum politique ndax yow it euh, militant nga bu passé ma fàttali ko fële ci Grand Yoff fi mu nekk nii nag li nga moo gën ak it euh, li nga xam ne mooy daf nañ benn espèce am ne euh, fan lañ leen itam euh, bees balaa may sori rek lan nga gisee peut-être information bu gouvernement boobu ban lañ waaw merci beaucoup ci thème bi ak politique bi pour ñu waxtaan ci c'est vrai que militant Grand Yoff la ci ci yëngatu ak suñu bëgg-bëgg mooy que ñu am beneen gis-gis ci politique beneen lu tax ma wax loolu parce que man amu benn yaakaar ci gouvernement bu bees te premier ministre bi ah, ndax boo xoolee ki nekk premier ministre fii moo fi nekkoon fi comme adresse ministre de l'économie jamono bi passé waaw lan la fi lan lañ fi def te itam ne da ngay gis ne. waaw ah, su ma nee su ma nee def dara. mooy que mu fi def euh, impact bi néew na. waaw mu fi def xam nga ñoom problème mooy mu dañu am priorité xam nga réew am ay gis nga am benn bu ñu defar lépp amul am mais xam nga fan la ñu wutee ci ah, ñun ak yeneen réew mooy réew dafay am ay priorité nga xam ne secteur bii secteur bii secteur bii moo war a nga concentré sa énergie soxla yooyu yooyu bu doxee rek xam ni réew mi dina dina dox parce que benn président mënul soxla yëpp da ngay doxal bii doxal bii doxal bi keneen ñi doxal lee doxal lee doxal lee dama lay jox benn exemple par exemple fu Macky Sall président bi seen liggéeyam gën a concentré mooy ci wàllu infrastructure mais ci moom foofu liggéeyam foofu la gën a concentré xam nga kenn mënu ko bañ a liggéey mais ci foofu liggéeyam mais problème boobu noonu di priorité parce que am na ku ko ku ko njëkkoon na rek priorité am naa la ñu teg Sénégal kii yoon boobu kon loolu kenn ku ñëw da ngay def continuité mais li priorité moom lan la war a indaat te Sénégal fu mu toll nii fii justice la économie ak sociale foofu la ñu war Sénégal moo tax ma ne la gouvernement bees bi amoo ci yaakaar parce que bu doon économie la kii moo nekkoon ministre de l'économie. daa mel ne fi mu nekk ci loolu wax noonu problème social ci lañ ci ci lañ nekk ndax def nañ ko indi sax ab concertation ndax gouvernement loolu dañ koy jël priorité. waxtaan yoo xam ne. fekk ay bés yi nga xaar euh, résultat yi. xam naa peut fi ngay jëmee xam naa ko muy wàllu dund bi yeeg wàllu location bi président est ce que xam nga ni bi ñu toll nii Sénégal ci wàllu location est ce que xam nga ni Macky Sall mooy wote. Ah, très bien xam nga euh, avant mu ñëw si avant mu ñëw nekk président man dama doon par exemple boobu sax benn chambre mu ma boobu. da ngay am chambre vingt cinq mille mais tey bi nga wër fii ba jam daal ba Kër Masar doo am chambre chambre vingt cinq mille am. ndax lu tax ndax boo ñëwee nga ne léegi damay wàññi location nga ne wàññi bi ñun ñoo xam ñu dëkk la concerné xam nga déjà ne ñu dëkk la concerné c'est-à-dire que yow mii xam ne amagoo léegi concerné wu la su ko mën a wax léegi ki dëkk si la concerné ñu wàññi location ci moom mais kooku borom kër yi la la ñuy def. da nga naan damay defar sama nji donc mooy benn nag ñu génn après su paree dina ñëwaat mais boo demee c'est-à-dire que léegi wàññi conseillé tur la mu defar ni nga perte ko ba pare mu ne la boo bëggee ñëw def yow da parce que lu tax parce que donc dañuy yokk seen néeg lu tax parce que dañuy xalaat ne mun na ko wàññi ak encore moo tax ma ne jafe-jafe tudd ñu Macky Sall moo ñu ko teg parce que bu ñu ko bu ñu parce que boobu néeg ak salle ñu nga ko am trente la lu tuuti dina fay quarante mille chambre simple lu tuuti dina man nag su ma koy su ma koy xelal xëy na peut être ñoom ñu ngi si may wax que ne peut être dinañ ci may jiital su ma koy xelal na def surface corrigée na def surface corrigée maa xam maanaam dañu naan mètre carré bii ci bés bërëb eh, par exemple ci kàr gi sangam nii lañ ko mën a luy kenn waru ko dépassé bu boobaa day réglé ku fi ki dëkk ak ki dëkk fi mu def loi mu appliqué la loi sur la surface corrigée bu boobaa nag bu yóbbu mu ne par exemple gannaaw yóbbu yii. surface mètre carré bi war dépassé nangam fële mètre carré war dépassé nangam ainsi de mais bu fekkee dafay appliqué wàllu politique bu mu appliqué ci lorange rek la ñuy kantaa dund bi nag man de vraiment euh, jaaxal na dund bi seen yàlla da ngay xëy jour ngay dem boutique ba ñu ne la bii la la laata ñëwee ñëw ñu ne la cent franc la gannaaw suba te lu si gën a nga ne prix yi nangam lay jàpp mais il faut que am contrôle il faut que am da ngay dem ci bitik bii mooy le fukki dërëm la am nga dem ci bitik bii mooy le cent franc nga jaay léegi bëri sax a ñëw rek boutique dafa mel ni marché te boutique a régler la même daan bi ci am na bu nekk nga sa boutique témoin boo xam ne dañuy naan kilo suukar ñaata am lay jaar boo demee ci boutique bii mu jox mu jaay mu jublu si nga dem ci boutique témoin laajte mu ne la nangam la nga xam ne bii bii jàpp moo am ay contrôle yu souple ci kàkk yi. di xool mais loolu bu amee tamit même boo defee ay mesures tamit amul benn njëriñ waaw xanaa rek ay mesures politiques pour préparer 2024 avec le gars qui est à la tête premier ministre la xaw ma tur sax fàgg naa turam sax waaw waaw. Euh, ba léegi ci conseil des ministres bi nga xam ne moo moo moo weesu gis nañ njiit réew mi euh, wax ki nga xam ne mooy jëriñam bi wàllum justice mu euh, préparer liggéey daal ba ñu mën a amal ab euh, amnistie ci nga xam ne ñoo perdre seen ay euh, droits am mais yëpp ci euh, Karim boobu balaa wax ci musique boobu dañ wax gis nga adduna mhm. nit bu ñu la nawee da ak mu war wala daa loolu nag perte la gis nga kooku nga wax ni gis nga Ismaïla Madior Fall bokk na ci ñoom ay professeur yoo xam ne ñëpp a leen moom sous région bi ñëpp a leen moom turam kese kese étudiants yi sax duñ duñ koy rêvé kon mooy koo xam ne étudiants yi koy rêvé pour ñu gis mu nekk un défenseur la constitution mais tey jii boo demee université dafal juste un exemple dama nga fekk e, étudiant de la faculté de droit nga wax leen Serigne Malick Fall dafa wàcc ndax la ndax nga wax lii suba nga wax la. non def non mais xam nga non mais étudiant yi la wax waxuma la ñoo xam ne. waxuma la ñu ne politique. wala ñu def Serigne Malick Fall tey bu duggee fac droit étudiant sax dañ koy jëppi kenn du ko mu jàng jàngale parce que parce que gis nga un enseignant ma toujours dama koy wa un enseignant du supérieur un enseignant du supérieur moo waru nekk koo xam ne moo waru nekk nekk koo xam ne c' est nu ñu koy waxee sax eh, miroir bu dëkk réew la daara ji kaw ji du du du lu ndaw. daal jàpp ne daal moom dañ koy manipuler dañ koy manipuler. non mais loolu moo ma gisee parce que dama xam ne man fi ma dugg nii amul kenn ki nekk ci ku yàlla may makam moom mu ma manipulé soxal ma koo xam ne professeur titulaire nga nga nekk agrégé ngay bàyyi sax bopp ñu leen manipulé koo xam ne sax nga jaaxle jàngale koo xam ne sax li nga am ci diplôme xaaju sax amu ko nga koy bàyyi mu ne manipulé mu ne manipulé dina def loo yéen ñi c'est dommage loolu laa ci bëggoon a wax dara. ñu ñu nga suñu liggéey rek yàgg naa ko wax ñoom transformation yàgg na ko wax mooy nañu delloo nit ñi seen droit pour ñu mën a présenter wu ñu def loolu c'est c'est am mesure boo xam ne bu fekkee dañuy ñëw na lu ñuy apprécier mais le problème c'est quoi c'est que euh, xam nga ni ñu ko lañu jaarale mooy que du ma du ma du ma juriste mais dama déglu sama benn xarit juriste maam dama wax ko nag vraiment lu nit yi la ñu am ici fee yi la ñuy am ici alors lu si gën a def dangereux mais nga am ici ay fee ñaata la ci état dépensé ci ay xaalis ci ay koppar nga ne nit ki moo def lii nga dëj ko ba analyser nga ñëw amnistié ko maanaam kooku def dara ko dara mais loolu saaga réew mi la saaga population bi la saaga loolu bu ñu ko defee itam naa naa moom toujours bu baax na on apprécie mais ci wàllu principe saaga Sénégal yi la parce que génn ay milliards Sénégal yi dugal ko ci loo xam ne nga ne jiw def na lii ba condamné ko. ba pare ngay njëkk nga ne kooku daal def daal soppeeku ko dara donc ah loolu yëpp éponge nga saagale saay Sénégal loolu daal laa ci am lu mu wax foofu. Euh, am nañu gis ne euh, maanaam euh, bàyyi boobu ñu nar a bàyyiwaat Fanta Sall ñu ñëwaat ci langue politique bi a néewal doole ki nga xam moom mooy seen leader bi Ousmane Sonko ndax yéen am ngeen même gis-gis xam nga loolu wax ko vraiment ñàkk xam politique ci sama gis-gis wala ñàkk xam vraiment lu xew ci lu ñàkk comprendre lu xew ci dëkk bi la parce que xam nga ñun ay Khalifa Sall Karim Wade honnêtement dañu wax ne Khalifa Sall c'est vrai suñu leader am na une bonne relation ak moom ak mais du ñoo xam ne ñu ngi jiital ñun loolu fo suñu focus yi ak yow dañ ko classe loolu. da ngeen da ngeen ñu ne la non xeetu ñu leen. mais xam nga euh, tey Sénégal yi lu ñu soxla nekkul ci Khalifa Sall nekkul ci Karim lu Sénégal yi soxla la wax nekkul ci ñoom lu Sénégal yi soxla man sama yaakaar bu ndaw ci Ousmane Sonko la. ah kii xalam gis waaw xam nga loolu lu question loolu damay xool par exemple ñooñu kañ lañ commencé politique kañ lañ commencé politique yàgg na balaa Ousmane Sonko di ñëw te Ousmane Sonko persil mu am kan ci yow moo ko am en un temps de record il a battu tout le record. donc ça veut dire que discours bu mu indi c'est une première au Sénégal discours bu mu indi comportement ak attitude bu mu indi c'est une première au Sénégal. mais est-ce que ñu bàyyi xel leneen ne maanaam pour d'habitude masse boobu ngeen gis pour boobu yëpp. waaw ah, mais kon nag boo dajale ñu ñu ñeme na boo dajale. est-ce que. ah waaw loolu nag loolu nag mooy liggéey bu mag nag boo xam ne parce que mu ngi koy def. Euh, vraiment ñu ngi ci liggéey yàggul noonu dimanche passé je pense que yaa ngi ci jumul euh, suñu mbokku patriote yi def nañu ko askan pour enrôlement bi mooy ñoo xam ni. d' abord euh, mosuñu voté ñu fexe ba ñu inscrire ñoo xam ni am na carte d'identité te euh, non votant lañu ñu fexe ba dem inscrire ci liste électorale ba presque ñu mën a amaay euh, ñu na leen onze et comment dirais sensibiliser leen pour vraiment ñu mën a dem uti seen carte te mën a voté parce que loolu moom am nañu ci yàq yi ñoom ñëpp te vraiment bu ñu amee seen carte. Euh, te vraiment ñu def ci lu ci war ci wàcc si terrain bi sensibiliser nit ñi xamal nit ñi lu xew mu moom ak dañu fekk ak ñu nekk rek ñu defal defal leen bagage. Lamine lan moo nekk sa kàddu mooy yëpp suñu waxtaan. waaw sama kàddu mujj mooy euh, am mbégte tam euh, partager temps bi et vraiment lépp loo xam ne yaakaar naa wax nga ko te mu nekk nii tamit ci ci biir Sénégal yëpp suñu dund vraiment mooy apporter contribution. vraiment ci ñu ñu doxee apporter quand même de connaissance ak suñu peu de voilà comment dirais-je euh, koy waxee sa expertise bi ci ci mbir mi. voilà di remercier quand même euh, d'avoir may euh, may bi pour ñu waxaat seen kàddu yi et peut-être nag ñu mën a amal yeneen détail pour mu développer yeneen sujet incha allah waaw. ñu ngi lay jaajëfal maa ngi jaajëfal mbokku internet yi nga xam ne comme euh, ñoo ñu doon euh, bàyyi xel euh, ci SeneInfo International di fàttali kon ngeen di lañ amoon tey ci sociétal penc bi mu nuyoo Lamine Yafa nekk chercheur docteur en chimie fële ci université Cheikh Anta Diop nekk itam militant ci Pastef bu Grand Yoff di leen jaajëfalaat bu baax ci seen teewlu di leen jox di leen kon la yàlla dara rek.